jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyu nañu leen am kontaante ak mbégte comme ni ñu leen koy defalee saa su ne saa sune ne rek ñuy gën di wane xale yi nga xamante ni yaakaar naa ni làmb dañuy am ci ñoom yaakaar barki démb gis ngeen ku mel ni euh, kuy liim doo juum waaye da dul matal waaye xale bi di tas yaakaar gis ngeen ko moom it euh, bari na loo xamante ni wanoon lañ waxoon nañ leen ko ci moom te ba tey yéen a ngi koy gis. Euh, gis ngeen barki démb Modou Bodi mi ñu jëli woon wane na ay firne Bébé Garga noonu bari na ay yeneen ndaanaan yoo xamante ni ci làmb làmb am nañ ci ñoom yaakaar ba waral ñu dem di leen jëli ay Baye Ma Ndiaye numéro 2 ak yeneen i ndaanaan yoo xamante ni ku lim doo jum waaye da dul matal tey ñu dalalaat beneen xale boo xamante ni moom it làmb am nañ ci moom yaakaar muy Batista numéro 2 mu nekk ndaanaan doon xale ñu di ko gis ci lutte traditionnelle bi muy gën di wane boppam lutte bi. ma nga ca moom it di gën a wane boppam gannaaw loolu moom la ñu dalal dañu koy bàyyi mu nuyu mbokk internet bi su ko defee ñu wéyal waxtaan bi Batista maa ngi lay nuyu baax di la siyaar. waaw maa ngi lay fay Baye Jili. Hmm. waaw di ginnaaw ma sant yàlla jul si yonent bi. Hmm. sant suma ñaari waajur. di sant waa àdduna rawatina waa Sénégal ak Pikine bi ma jóge hmm. nekk doomu Kaolack di sant Lamine bi ma àndal Batista bu mag. Zier Fallou Diaw ñoom sa deex ñoom ñëpp maa leen di bëggee. waaw di leen wax seen doom yi loxo yi. Batista. nga tuddee sa bopp Batista numéro de Batista numéro 1 seen diggante yi ñaar lan la ba nga tuddee ko sa bopp. waaw Batista moom xam nga ñoo bokk koñ ñoo jaaxaarloo kër ma daan jàng muy bëre ji dama daan daw jàng sax di dem combat barke Seydina Mohamed signature am sama ba dama waroon def essai ma bàyyi essai bi dem dem signature ba yëngu leen. Hmm. ba ma ñëwee sama papa ne ma lu tax jàngi joo dama demoon signature ba. xam nga rek nee nañ lu nar a feeñ après. Hmm. boo nekkee xale di ko gis sa deret man xamoon naa ne tôt ou yow mi waaw loolu moom mosuma bett xamoon naa ne daan doon mbër te damay doon champion bu neexee yàlla suñu borom. lan moo tax nga xamoon ni da doon mbër. parce que dama ko fooyee man maaguma bëre ba nekk booy dama doon bëre ñett seex yi ma doon wax sànq ñu doon tëgg ay mbapat may dem di bëre di si bëre ba tey lu yàlla dogal nii. Hmm. gëm naa damay doon champion lépp lu lépp lu bokkut ak làmb dama koy bàyyi fële ba képp ku ma dajal buñ dala buñ dalantee nga xam ni carrément booy bi booy bu nekk si yoon la Mm. waaw ambition boobu la am quoi. Mm. bis bi ngay dugg ci làmb war a bëre sa diggante ak sa papa nan la demee parce que sa papa nii dama koy gis ci làmb yu bari day ñëw taxaw assister la ba pare du la may dara. waaw looloo jaaxal ñu bëri xam sama papa moom sama borom la. Mm-hmm. maanaam maag moom ñoo toll su ma la nekkee sama papa la sax na. dëgg la effectivement. waaw te moom yàlla daa dogal mu bëgg làmb ji. bëgg moom ma ko gën a bëgg sax man mi xam nga da ngay jubandiwaat mais doone mi ngi daanu mm. a su conneer yi mais dafa ma daan acca entraînement instant sama liggéey dafa ma ko bàyyiloo barki alxuraan liggéeyu defuma dara kër la ma toog chaque jour ko lay jox 4500 xam nga xam nga ne bëgg nga bëgg na nga dem chaque jour 4500 chaque jour billaahi wër na yàlla maa ngi sant ñoom benn nag ndekk ndekk 2000 bari na de loolu dépense kër la ndekk 2000 waaw yar ah, déggoo ñu la yar mbër moo gën a metti yar xar yar mbër moo gën a métti yar xar. barke Serigne Saliou léegi yow lan ngay ndekkee à peu ah, boo doon ndekki fi mu toll affaire mbay gi yooyu noonu. <laughs> non mais bëgg naa xam lan ngay ndekkee ndekki 2000 loolu lan la war a doon. man kilo mburu laay jënd chaque jour def sa ñaari omelette ak frite jeex na. ñaari omelette ak frite waaw loolu sama ndekki non loolu matut mil waaw ma doon dem la après après argent poste bi tamit kilifa laa <laughs> poste bi daa war am dara. Ah, mais combat yi li traditionnel yi ngay génn di jël yaa ngi compétir di jël euh, yaakaar naa bu ñu tuuti avant Covid bi am na foo génnoon ci àll bi jël xaalis boobu boo jëlee noo koy def. waaw lépp sama babaay dirigé. sama baab hmm. mooy dirigé xaalis bi moom man jël laa si am ndax su may dem làmb fa la jow lay àndal sama rox papa la xaalis bi sax du tegu sama loxo yàlla Muhammad su ma jëlee tak moom mooy encaissé bu demee jox sama baaba ñu toog. génnee jox ñu ñu àndaloon après des naa denc noonu la quoi. Hmm. xam nga tamit li nga mën nii nii nii di nga toll fii ak ay jamono doo doo ko mëne. Hmm. boo tax xale boo nekkee di góorgóorlu di am dara da ngay denc xalaat suba quoi. Hmm. waaw man loolu laa gëm. daa mel ni commando rek loo am lekk mu deex. <laughs> commando sa waay la leneen kooku da nga koy tooñ rek ko saa la sonal quoi du dara <laughs> mais euh, ñu ñëw ci ci ci combat yi kañ nga jékki-jékki rek xam ne jot na Batista numéro 2 dugg ci ci arène bi ban moment la. mu xool man yàlla daa dogal ni sa premier combat maa nga bëree 2018. moom hmm. maa nga bëree Kaolack. 2018 maa nga bëree Thiatou Sita. ku tëggoon loolu daan ko Moussa moo ko tëggoon. Moussa Diama production. Hmm. waaw ma daan Thiatou Sita a bëriwaat 2019 sama papa ne ma doo bëri da ngay xaar. xaaral ba xaaral ba beneen saison bi ba nga gën a yokk doole. Hmm. ma xaar dégg ndigal xaar après saison bi si topp ma bëriwaat benn combat muy deux ma teg la trois combats saison bi. yàlla deuxième combat nga teglewaat trois combats. waaw muy cinq combats cinq victoire. actuellement nii yaa ngi ci cinq combats cinq victoire. bilaay cinq yoon la gars yi jël ma ba man tamit. yan gars yi gars yi fii mbër barki alxuraan dañu am naa six combats mu yàqu. ka fa wax mu ne booy bi day ba combats am naa six combats ren ren mu yàqu. Dugar Pël bu géej waay jox nañu ko sama avance mu bañ. ak kii nu mu tudd. Dugar. Dugar Pël ak am na keneen ku nekk géej am na combat nii sax te mu waroon bëri booy jolof te mu daan a doon turum lay fàtte. ñëwal. ak kan daan na bébé jën waaw waaw ñëwal dina ñëw ak kan. waaw moom la ñoo jox jox ma X9. X9 bu nekk si mbabat yi. Mm-hmm. jox nañ ma ko mu jox nañ ma ko ma Siteu bu jàmm gën numéro 2. ñoom ñëpp soo leen waxee lu ñuy wax boobu day bëri mbabat luy mbabat. mbabat tamit du dara. tànnut génnoo mënoo mënoo xam lu nekk si mbabat man ba may doog a mbabat yi maa ngi ànd ak ay tas ay yéegi ni bañ ma waxoon kañ la mbabat dama noon bañ daal la du mbabat man mbëru arène la mais actuellement yow sa catégorie ci làmb boo doon xool ñan nga gën a bëgg yan adversaire nga gën a bëgg yoo xamante ni moom bu ñu ñëwoon tey jii boo tëddee nelaw. xam nga làmb moo tëddee loo xamante ne instant bi mbër boo laaj mu yaakaar da nga koo bii kan moo mën a. préparer kenn ma Ndiaye junior bàyyi ma si kenn. Fourière men bu grand Fourière men men avance bu ñuul ma jox la si. ngay ne meer ko ñett rek. da ngaa yaakaar mën nga ko cee delloo. bu baax yoo xam nga damay <laughs> topp man musuma bëre sama borom. ak kan leer na sama borom mag rek laay bëreel. ak kan. ñoom ñëpp gis ñoo xam nga ak kan nga wax léegi. Baye Ma Ndiaye si ñoom mooy kii. kan Jéeri Ngoone Massamba. Baye Ma ko daan moom waaw. non Ma Ndiaye ak Baye Ma Ndione duñ benn. non Baye Ma Ndiaye la Sukaabe Ngoone Massamba loolu lañ koy. bàqee damay libéré gars yi mu gaaw. boobu nee na ma ma ndaam tëx mi maamam de. tëx mi maamam Baye balaa dégg fukki bala ñaar na tuuy. man man maay doomu pikikaa bi doomu pikin beeg Kaolack su may bëree sëñ Babacar Mbacke mu kabaroo bis la may may mu jugee Kaolack sama association jël ñaari oto ñu ñëw borom jege raay convent ñëw kon yoon la kon du yoon may taxaw boo yooyu noonu sama baaba daa ma séenu dafa wax noonu su ma fa demul rek si man boo tax damay rey sama bopp bu baax a baax a baax pour dimbali ko si côté boobu. yow yaa ngi bàyyi ma ñoon si ñaar. ndax ñëpp a ngi gis sore woo leen sax. Pikine nag. Euh, caare gi boobu tas la bëre tasoo ko daan tasoo ko hmm. daan bëgg nga ko. déggoo mu lax duñ fa taxaw barki sëñ Fallou. booy ma fa taxaw bàyyi ma booy dafa wex de te rakk rakki mbër la de bàyyi ma ñoon ay magam. sama combat ren gis nga sama borom mag rek laay bëril busuma bëril sama borom. wóor daa waroon fekk may bëril lese mais su ma demee lese dañ ma naan luur parce que sa poids dafa diis. ah doo lese nag. mais man lese bi leer na ma ne yi bëri si lese bi ñoo mag barke Serigne Bamba. yow ban année nga. 2001 laa judd le 9 avril 2001. wax leen alxuraan. waaw la gars yi wax parce que gis nañ bi bébé Elton le 2017 xam nga 2018 la judd. 2017 waaw yow boo nee 2000 lan 2000 lan. 2001 yow yow yow gis nga sama papa n'est-ce pas. 2001 non booy nag. 2001 non kanamu xale boo ko la non la suñu équipe fa gën a nekk xale. yéen ba yëpp maa fa gën a nekk booy. non xale nga moom mais 2001 euh, dafa dafa kii. yow Zos sa commune boobu dafa dafa am benn jour tas yaakaar ne ma dañu dem euh, Touba këram mu ubbi ba taawam. ne ñu jël leen ay yére nee na ñu jël mais Zos ba ma ko expliqué daf na du tas yaakaar nee na tas yaakaar ni mu màggee. ci diggante bi loolu mënul nekk. ba léegi ko xale la. ma ne ko moom la mais. vraiment li ngeen di màggee macha allah. confidence beeg taay beeg yu mel noonu. mais làmb li traditionnel bi fi mu toll nii actuellement noo ko gisee parce que gëj naa la gis ngay génn surtout ci ay Dakar ak yu mel noonu. génn bi lu ko waraloon mooy bari saa amoon combat ak soq. Mhm. waaw xam nga samay grand mënuñu am combat ba nekk si àll bi bàyyi leen ak seen combat du yoon. damay ñëw jàpp si entraînement yi jàpp si contact yi matinal bi ñu àndandoo di jug daanu. ba mhm. yàlla may leen ndam ñoom ñaar ñëpp. Mhm. kon loolu bu baax a baax Hmm. waaw loolu rek moo tax man un mois laa toog génn ma xaw ma ay un mois quinze jours yooyu noonu bëriwul. Hmm. ren gars yi bu ñu joxee suñu ëpp drapeau ma ëpp drapeau ren. la am man douze jël mais ñu ne ñu ne ma yu Gambie yi bokkul. Hmm. mais bu ñu si actuellement fi mu toll nii yaa ngi xam sa cosaan euh, nekk fa ak say grand di entraîner euh, écurie ba nan la demee actuellement parce que avant. saison bi di ubbi am na ay ñool-ñool yu amoon seen diggante seen biir seen ay équipe bi loolu fu mu toll nii fu mu toll. xam nga ànd moom des fois ay problème mënul ñaax. Hmm. mais nee nañ ànd bu bu xawee laxasaayu rek boo leen boo leen boo leen waxtaanee déggoo. Hmm. waa gars yi saa yi waxtaan nañ trouvé nañ solution xool yëpp benn la xam nga ñun équipe ba daa bëri ay booy sama classe gi. Hmm. mën nañ fa 15 grand frère doo ko ñëw. boo nekkee si benn secteur nag gars yi Mhm. xam nga yow Pikine daa bëri ay mbër kenn lu ko wax. Mhm. te pour nga génn si loo boobu noonu faa nga liggéey lu wóor. Mhm. moo tax nag essence yi fa laa toll. foo weesu du ma làmb li ma wax sàng rek fii ma leen fekk si kaw dina gën a métti si ñoom te yow loolu leer na la barki alxuraan. man ba ma daanu moo tax may jug dem si mbapat yi may jàngal sama xel a ñëw mais bisu moo leen fekkee foofu noonu si kanam tuuti day métti kenn du ma daan wallaahi. te ah. bis dina ñëw yii yëpp day génnaat fii ma leen fekk si kanam dina gën a métti si yéen ñëpp ñoom ponkali wala ñoom booy. ponkali yëpp man damaa raw samay morom du ma bëri samay morom samay morom mag laay bëril kii sama mag la te su ma la ko waxee nga ne déedéet. bat suñ Fallou. Euh, sama mag la moo tax leer na ma ne làmb gars yi su ma doon fekkee dina métti si ñoom bu baax. Hmm. bañ ma ko ma daan nag bu la neexee def leen lu la neex maa ngi nii mais képp ku si fooyee sa bopp ma tër la dem te si kanam kenn du ma jot. bu neexee yàlla suñu borom. instant yi promoteurs yi nii nii nii ñu ngi ñu ngi wut sa adversaire ñu ngi lay wutal adversaire. waaw ñu ngi may wutal adversaire bu baax instant yi ren ah, jotoon naa jël ñaari avance Moussa Diama Kaolack jox na ma ñaari avance. Moussa Diama waaw benn bi décembre la woon. Hmm. décembre mais gis nga affaire nu mu demee. waaw maa ñaan yàlla nag affaire yëpp dañ ci jàmm ak salaam ba gars yi delluwaat si tey comme ñun làmb lañ am amuñu dara dul làmb liggéeyuñ defuñu dara entraînement tëdd na la bëri waaw di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla jëlee mu gaaw jëlee ko si àdduna bépp ba gars yi delluwaat si tey xam nga ay tas yaakaar yooyu noonu dañoo war a jël xaalis bu bëri yóbbul maire ak Fils de Batlen waaw di ñaan yàlla yàlla lépp deñ rek bañ nekkaat si tey hmm. li ma la wax dama la koy waxaat sama père dama ko bëgg a teral barki alxuraan parce que góor laa hmm. góor laa tamit damay toog mooy eh, ah, mais mooy loolu parce que xam nga làmba demee noonu xale yi moom ay xale lañ yoo xamante ni surtout mooy li ma doon wax bërki démb rek état na gën a taxawaat xale yi état na gën a jàppale xale yi parce que ñii amuñu lu dul làmb tey xam nga bu nit taxawee ne suma papa laa bëgg a teral ba mu jaral ko mu jooy moo lay wan ni am na fu mu ko toll kon état yéen ñi nga xamante ni yéen a ne ci réew mi gën leen a gestuwaat xale yi saa su ne ma wax ko li ma dëkk di wax mooy xale yi bu ñu bàyyee làmb bu làmb amatul xale yi dañuy agressé ñii duñu agressé parce que ñii boo xoolee seen xol sax xam ne yoruñu xolu agresseur xol bi ñu yor mooy bëgg teral seeni waajur bëgg a teral seeni mbokk bëgg a teral képp koo xamante ni yàlla suñu borom boole na leen ci seen xéwal kon yéen ñi nga xamante ni yéen a jiite xale yi yéen ñi nga xamante ni surtout yéen ay mbëri euh, da ngeen di gën a jàppale xale yi parce que loolu mooy làmb loolu mooy àdduna Batista wax nga sa xol tooy na mais faw nga ànd ak sa xol xam ne lépp ci àdduna dina jeex euh, ku ci nekk rek. boo waxee rek sa diggante yàlla li nga bëgg mooy teral say waajur muy reporter bi muy mbëru làmb bi muy amateur bi ñëw ci làmb képp ku ci ku ci nekk rek ñaan nga yàlla say waajur lekk li nga xamante ni ñooy sa ñax lan moo waral lool. rawatina man man góor laa góor laa. Hmm. xam nga xëy ñu lay jox ndékki neexul. Hmm. soo ma yoon léegi day am day am lépp lu mu bëgg. Hmm. mais jaam pexeem yàlla ak dogalam. xëy sama papa tegal ma sama xaalis foofu neexuma wala ahi. ndeysaan. ndeysaan mais xam nga euh, ndeysaan sigil sigil àddunaa ngi noonu saa su ne rek ñuy wax ni sànq mooy li may wax mbëri ay borom jom lañ ay borom fit lañ ay jàmbaar lañ saa su ne rek euh, làmb su amul mbëri dañuy agressé loolu du am ci làmb parce que xale yi ndeysaan ay nit lañ yoo xamante ni teral seeni waajur rek moo leen tax a jóg kon yéen ñi nga xamante ni yéen a nekk xale yi yéen ñi nga xamante ni yéen a war a jàppale xale yi surtout état lii ay responsabilité état la état moo war a gën a jàppale xale yi rawatina ñi nga xamante ni dañu nekk ci làmb ji di ci gañ seen vie di ci wut loo xamante ni dañuy yóbbu seen kër gis nga Batista li mu wax ndeysaan képp ku mu doonoon sa xol dina tooy saa yu ma xëyee sama papa day jël xaalis teg ci table ba li mu ma sant mooy naa entraîner naa concentré wu parce que investissement la papaam di def ci moom njort na ni fépp fu mbër di teg tànkam wala lépp lu mbër di am ci làmb doomam dina ko am tey loolu lañ koy ñaanal ñu ngi ñaan baayam boobu tamit yàlla may ko gudd fan ak wér ba lépp loo xamante ni Batista yéene na ko ko wala bëgg na ko koo defal yàlla defal ko ci lu kawe njortam euh, mu mel ni Batista li li sa papa di daj ci yow xam nga responsabilité boobu kon li papa coon doon wax naan yàlla na ko yàlla yërëm taxaare ko àjjana balaa ngaa xam li sa baay daan daj nga màgg ba ràññee sol dàllam mu jot la kon actuellement nii yaa ngi doog a comprendre li sa papa di daj rawatina li muy investir ci yow pour nga doon champion. Eh, bàyyi jul noonu la demee xam naa ne foofu su ma fa soree. Hmm. nii la noonu lay demee waat rek. Hmm. waaw toog toog naan bëgg naa sama papa moom waxin la quoi. Hmm. parce que ñëpp ñëpp fi ñëpp am papa. ndeysaan. waaw ndax nit moom loo wax sa papa rek keneen dina sentir lu raw loolu. waaw moo tax yu bëri mënuñu ko wax soo waxee ñu ne leen sa papa am la wala dara. waaw yàlla baax na yàlla gën a leeral yoon bi rek ñun ñëpp képp ku doomu aadama bëgg a mm. teral say waajur mm. yàlla na la yàlla may xewal bu doy mm. ci kàttanu Seydina Mohamed xam nga li koy maye euh, lan moo la mën a def champion ba tey li nga bëgg a defal sa pàppa mu nekk ci sa bi nga yeggale ko moo tax ma la man su ma doonul champion damay tooñ parce que Seydina Mohamed ki la teggil coono yëpp soxlawul sa dërëm nga toog jël làmb xaalis bi lu mu baree bari bëri bëri soxlawul si dara da koy denc te si te si la lay yëkkati waate xaalis di la jox man maa dem ba maanaam mun naa ne damaa fuuy. ndax su ma jógee entraînement matinal midi damay nelaw ba 2 heures ci laa doog a jug génn. keroog ba keroog ba kon neeram wàccee ba fa liggéey ba ay midi sama heure nelaw la fa jot boobu damaa xaw a gëmëntu mu ne ko damaa gëmëntu papa mu ne nga lu may daj si naaj bi chaque jour lay daj. wax jooju dama ko bàyyi xel ba léegi barki alxuraan. métti ma trop. Mhm. mais jaamono pexe yàlla dogal léegi nga war a doon champion actuellement ku ne xam na ni làmb dafa am lu mu laaj. faw nga sérieux faw nga mën a concentré wu faw nga fiir ci sa bopp est ce ñett yooyu yëpp yaa ngi koy boole. wax na la ko sànq. moo tax ma la dama jug pour doon champion lépp lu lam bëggul dama koy bàyyi. Yékini na fii ak daa temps yi nekk booy daa jël fii ak 10 hmm. loo xam ne lam bëgg ko mu teg ko ndële mu dem xool. nee na matul sax 7 mu jot li mu jot yëpp. waaw man nag fii ak 7 laa séntu sama bopp fii ak 5 ans. Hmm. dindi lépp lu lam bëggul. feeg kon feeg 3 ans man nat naa li ma bëgg jot dinaa ko jot bu neexee yàlla suñu borom. man surtout Samba Xoyane laa. pël laa pël 100 pour cent. ndeysaan. waaw. Mhm. Eumeu sama maam la. kon yoon la fa mu jugee noonu man man delloo fa man. ndeysaan ci kàddu Seydina loolu demee. jërëjëf Batista laa dalaloon mbokk yi numéro 2 dégg ngeen leeral yu am solo yi nga xamante ni indi na ko wax na lu baree bare ci làmb tey nag làmb moom euh, li may wax saa su ne rek du biir day xëy wasin ñoom ñëpp ay champion lañ te làmb dafa am fu ñu toll ci ñoom euh, ginnaaw loolu dañu koy jaajëfal bu baax ci déplacement bi ci disponibilité bi di ko ñaanal suñu borom guddal fanam moom it ba lépp loo xamante ni fas yéene ko na ko defal ko ay waajuram yàlla defal ko ku lu kawe ko jortam ba mu defee ko ni mu ko bëggee ba ci sax maa lay jaajëfal bu baax a baax a baax doomu Zeus bi. waaw dafa leer Zeus moom sama papaay bopp la. Hmm. xam nga kuy yëkkati alalam def si yow. waxuma la ay bëgg bëgg bëri bi rek. ak hmm. bëri saa sama mbër la. te sama papa la sama papa la. ndax moom sama papa ñu doon ànd guddeeg bëccëg. dem hmm. conteneur fu ne. Hmm. waaw mu doon ñëw suñu kër chaque dimanche. boobu musul gëm ni sax naa doon mbër boobu maa ngi jàng. kon tey bu demee ba may jàppale sant yàlla di ko ñaanal yàlla yàlla yokk xéwal gi foofu bu baax a baax a baax. waaw ba lu mu séntu si man ak tas yaakaar yëpp. ñu àndal ko si kàttanu yonent bi. amiin yaa rabbi jërëjëf mbokk yi kon ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen tàggoo ci tàggoo bi nga xamante ni moo dul tàqali ko di leen jox dig daje ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xewu làmb. waaw dama bëggoon nga may ma sant ñii nag. ayca ndax dañuy sonn si a baax. ndeysaan waaw. Hmm. Aziz Naar borom Espagne. Hmm. sama waay sama boxeur sama lépp maa lay hmm. ziar bu baax. Baye Omar Mbaye borom Turki ba ma ñëng sama papa borom ensemble maa ngi gis ensemble yi nag nice. yàlla yàlla yoo xéwal gu. Zeus borom iPhone yi. Mari Kotsu. borom Badora. Mm. son suñu combat ak combat tas yëpp moo ñu entraîné Marie. ñu ngi sant bu baax waaw yàlla yàlla gën a dëgëral kattan bi. Mm. kattanu yonent bi. Mm. Père Tafa Diop waa Boga sama équipe. waaw ku su mel ne ñoom Lamine ñoom Sakkoor Palata ñoom xaar daaru sonal naa la trop gayen mais gis nga rek bëgg nga signé rek mm-hmm. yàlla baax na ak Cheikh sama pro sama mag la ñoo bokk benn kër maa ngi koy ñaanal lu mu bëgg si football bi rek xam loo ko yàlla defal Mm-hmm. waaw ak Abdou Gueye Faaxe Abdou Gueye Faaxe moom ko wax moom maanaam damaa dem ba damay rus dafa may dugalal xaalis ba ba dama naan kii xanaa ñoo bokk ndey ak bàyyi barki alxuraan ndeysaan problème bu ma am su ma ko woowee du mat ñaari fan mu mu fajal ma ko faya maa lay ñaanal bu baax a baax mm-hmm. waaw ak Mia taalibe sëñ Babacar Si bi mm-hmm. ak Adja si Cap Foire Modou Sam Modou Sam Ferrer ak Zilboy mécanicien Zilboy maa lay sant bu baax waaw ak Lamine Diagne ma àndal di sant Sénégal di leen jox dig daje ci beneen xew xew làmb jërë ngeen jëf